MCS International, études d'information à l'étranger. Vous êtes élève du terminal, bachelier ou étudiant, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. Contactez-nous vite au 33 868 69 28 ou au 77 826 acca jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yi ñuy suivre ci site bi di Lutte Sénégal TV ah. ñu ngi leen nuyu baax a baax di am mbégte kontaante ci ñi nga xam ne ñuy topp duñu bàyyi xel à tout moment comme ni ñu koy defee rek avant pendant après ñu toppal leen bi toppal leen daanaan bi ku xam ne ne demb combat bu am solo amoon na foofee ci arène nationale doxoon ci diggante Jackson bu Géejawaay ak ki nga xam te mooy amee dem bu Caaro yi ñu gis combat bi ni mu demee Jackson am ndam ci kaw ñu fas yéene ko seet ci fas yéene waxtaan moom nan la entambe combat ba am dam ci ko amé dem dañ koy bàyyi mu nuyu nuyu ñuy civil su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi mbeur ma lay siyaar oui ma lay fay ciar ma ngi sant yalla bu baax du jul ci yonte bi du sant suma ñaar wayu du ñaan suma yaa fu mu tedd yalla no ko gën fu mu jógee du ñaanal maire ak père bakkar Sey yalla no yalla yërm taxal na aljana du ñaan suma sëriñ yalla na fi yàgg lool tëdd sëriñ mohammed Moussa wasi ak capitaine mam Cheikh ak mam babakar ma ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal yëpp waaw. bu ma dee présenté Jackson mooy kan. Jackson waaw benn xale la rek bu juddoo waalo yoroo fa magasin Dakar xam nga benn grand frère la bu Jackson. Mm-hmm. mbërloom may maa ngi koy na ko yàlla yërëm te xaru ko àjjana. Mm-hmm. waaw moom oh, ma sama quatorzième combat. quatorzième combat defet. deux defet. daan. kii moo euh, ak kàngam. ak kàngam benn nga daan kan ak kan ci lamb ñaar koo xam lamb xam na ko rek ñaar ba ñett rek waaw daan hmm. dan amee dem yi démb daan pam doy daan naar sowas waaw hmm. ah, daan sang daan bulal daan naa waaw daan naa ñu bëri daal Jackson lu ko bom ba mu dugg ci lamb à 100 pour cent waaw ñun moom amuñu maamu mbër amuñu papay mbër hmm. am naa doom bu ñu yàlla defal rek ak dessin <coughs> bu yàlla ne fii ngay jaar fi ngay jaar loolu xam naa peut-être la quoi sa combat yi nga am ban moo la si gën a euh, marqué ci victoire yi. waaw man moom wax dëgg yàlla amaguma victoire wax nu marqué ko ni ma ko waxee si làmb. na daan champion yu mag a a mag a mag peut-être ma mar. mais ñàkkul ni comme yi nga jot a daan am na boo xam te bi nga ñëwee sa xool sedd na kër gi nga gis ambiance bi ak sa xarit yi. waaw ah man ak sang daal xam naa ne moom dégg man dam bu neex bu ma neex la quoi. nga am mhm. mhm. neexul ñaari ban moo la a waaw man ak kàngam moom métti na ma trop ñaari yëpp métti na ma nag ñaar yëpp métti na ma trop trop waaw. waaw man ak kàngam damaa bëri lu man ay six combats daan ñëw xam ma mhm. mu daan ma urgent tamit xam ma mosuma gëm ni mën na ma daan ma ñëwaat tegle ko koo gaañ. Mhm. man làmb boo tegle ay vitale yi tegle ay defee day métti. Mhm, waaw daal gis nga bu baax macha allah yàlla na jëm kanam nga jógee ci ki nga xamante ne bi mooy euh, Naaru Sokaas bi nga ko jëlee coow li bari woon na ñu ne waroo ko jël moo la jiitu ci làmb ëpp la expérience nga bëreeg moom suñu borom mel ci ndam ñu yaakaar fa nga yem nga dem jël Ameth Dème lan la jël Ameth Dème. waaw maa ngi nuyuwaale au passage sax Naaru Sokaas sama waay la sama sama grand la la mhm. waaw jàpp na si combat bu baax a baax waaw ngay nuyu bu baax mhm. Ameth Dème waaw jël nañ ko tamit xam nga ak am gëm-gëm leen koy daan yàlla suturaal ñu si mooy ñu si ndam waaw loolu seet te gaaw loolu la ñaanal defal nañu ko. mais jël bi choix lan la yow yaa choix bëgg a bëre ak wala ñu la ko proposé wala lan la. non wuñu ko quoi laxaat moo ko choisir Abdou Lahat Ndiaye moo choisir loolu noonu hmm. waaw. di ko jëlee coow li bari na. waaw ko jël ndax moo la. xawoon na tag sax tuuti affaire de kase yooyu mais man maa ngi dagg sama xaar dollil ko. waaw yaa wàññi xaalis pour mën a bëri. waaw maa wàññi sama kase. waaw maa dagg sama xaalis bu bëri dooleel ko. pour mu mën a taxaw. waaw loolu la lu ñu la dee la wala gëm la wala bëgg a moom la. non gëm ak xam naa ne fu may yóbbu moo ëpp xaalis quoi. Mm. fu may yóbbu wax naa moom xaalis. moo ëpp xaalis. Mm, ah, mën nañ ñëw ci combat nga bëri ak waaw mën nañ ci ñëw. Mm-hmm. arbitre dafa soufflé ma taxaw ay une seconde deux secondes xam nga mm. ñëw dox si kawam ba ma doxee si kawam mu saani ma goos ma joor ak moom jël ko suuf ñu and rep man ak mom ñu jogar ma jëral ko suuf dal ko plaqué do daan jël ci 27 secondes. 27 secondes. Mhm. Euh, dafa mel sank sànq seeti ko. mais néna da nga doon daw xex motax nga daw yoru jappante bi. waye yëpp mën na nekk parce que xam mom moom doon mu wax ma du sama morom na nga waxe wax xass xam ko man nga xeeb ma. Mhm. bëre mom da ngay ñaan yalla daan rek. Mhm. man klaat na fa mbër bu nekk door na fa mbër bu nekk. bu dé man naan xex xam na bu dé man ma la xam na mais ndam na noonu ñaan yàlla yàlla may nañu alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bu baax. bi nga daanee am ndam. après coow li bari na ñu ne dafa am litige ñu ne da nga def kat ab yi. yaa ngi dégg loolu yow. waaw loolu moom moo ko gis. loolu moom moo ko gis. mais man moom sax mais ñu ñu bari ñu ngi wax loolu. waaw ñoom ñoo gis loolu peut-être quoi man ndam laa doon wut si yàlla may na ma ndam waaw alhamdulilah rabbil alamin. Hmm. mais sant yow fenn foo defee kat ab yi. non non vidéo yaa ngi bëggee dañ ci raan nit ñi duñ ay gëmm. Hmm. waaw duñ ay gëmm. moom magum jëmm la toog na fii ni du sama morom nangam nangam comprendre nga. Mhm. man ma ñëw jàpp ko daan ko xale bu ndaw jàpp ko daan ko si ay seconde jaxase ko daan ko si ay seconde. Mhm. loolu moom mu doy lu koy waaw. Mm. dañuy gis benn euh, benn fukk booy dégage ak benn gëm-gëm booy dégage si yow lan la. waaw entraîné na xam nga boo entraîné ba nekk xale sa deret di tàng. waaw da ngay da ngay da ngay sant sa bopp quoi ñu lay nañ di entraîné. Mhm. te duñu di xaw ma nekk ñu di caaxaan. dañ nekk xale gëm suñu bopp di entraîné. peut être loolu rek bu nu ñëwee bu tamay tegee booy aziko xam nga mhm. dañu mën a yëngu quoi. Mhm. Mhm. ñu gis bi nga ko daanee après génn nga taxaw nga ni sa gaal yaa ngi ko ser caare comme fan yi ser gaal daa xew. waaw siis bi fa laa ko teg de teggee gu ma ko rek. biir Thiaroye waaw. kon moo fi sa adversaire actuellement. Reug Reug mooy sama adversaire. Reug Reug waaw. ba li mu def sa grand frère moo tax nga bëgg a da nga ko bëgg a jëlaat. non man moom adversaire adversaire taay na Reug Reug boobu dara. lamb dafa am yoon xam nga lamb boolagul Reug Reug. waaw lu tax boolaguma Reug Reug. non moment bii nii Reug Reug fi mu jógee ak yow fi nga jógee. Reug Reug ñaar combat la def. Reug Reug bari ëpp ma combat ëpp ma victoire. mais adversaire yi bokkul. mais loolu si dara. Mm-hmm. lamb moom day xeeri wasin. la dëgër mi laaj la dëgër day moroom. Mm-hmm. waaw mi ngi noonu mom bu amé droit laaj la régué man na droit laaj n'est-ce pas. ñoo la démé rek. après lamba ji jeex ñi ngi ciow ñu né rek rek ñu né caare boo fa amee benn adversaire qualifié deux la te su ma juum la seen combat ñi ngi ko doon dox avant combat bi lu taxaw ndax da nga paré pour bëre ak moom wala. na wax du yalla paré mo pour bëre mom quoi man dama bëre dama bëre ku bëgg dara quoi man kuma bañ ren déwon di ma bëgg. dama dama damay bëre damay bëre bëgg mbër mu bëgg bo xam mbër mu bëgg réussir mais di gungé mbeur chaque jour rek di gungé di dem. man day gungé day gungé rek. Hmm. man nag gungé wacc tangi tous hmm. mais du beuré <laughs> du du beuré ah xol nga rek kagn la bëgg kagn la ko beuré bëree. waaw ah, bu beuré ben combat man na tok 4 ans di gungé mbeur di tous wa du beuré hmm. mais est-ce que xam nga combat wala ñuy di ko di ko non du légui de du du légui kon de. mom mom mom moom doñ waxtaanee ngay wax. wa mais du légui mais ba ni ni ndax hmm. comme neex da ngaa bàyyi sa gaal biir caaro ñu ne benn adversaire nga fa am actuellement muy Coly Faye non non Coly Faye adversaire bo lamb boole duñu ne patron am laa hmm? patron am laa dama dugg écrit daan tëdd bi lu hmm. ma koy kon actuellement avance bu fu kon ko jël non non na jël yoon ma jël sama yoon boobu rek Dan amee dem fa la la mën a ci biir lamb ku sore kay waaw moo tax am sañ taxaw di laaj rek non laaj xam nga laaj mais ñu jox la ko wala nga bëreeg moom mooy mooy jafe-jafe ba. waaw Thierno man man du ma tàmm génn si média di wax. Mm-hmm. kon su ma waxee lii rek gëm naa ko am naa fu ma ko teg. Mm-hmm. waaw da am fay boo gis si moom wala dafa am loo gis si moom ba tax nga ñeme ko. bu ñu bëree ma jàngal ko bëri laa la wax dégg nga ma la wax. rëg rëg benn. wallaahi bu ñu bëree ma jàngal ko bëri. billaay lu ma gëm laa wax nii. est patron moo la poussé pour nga laaj rek. non non li kenn waxuma si du patron du kenn koo xam ne wax ne li sama sama sama sama yëfu la. décision bopp la sama décision boobu maa ko mhm. mhm. mm. ko jëlee wàccaay métti woon na si wala. ay coono yu métti ànd ak la dëgër de xam mu teg ñu yu métti. ànd si ñu waa équipe Guédiawaye mbooloo daj ay coono waaw. Mhm. moo demee nii mënoon gaaw. sa diggante ak la dëgër de lan la parce que dama gis saa bu amee combat moom du yenn du fanaan wa suma waay la suma xarit la lepp hmm. la wa ya, day baye leppum suba si dama koy wonum mu day jog and ak man matnal contact yi yëpp ci biir hmm. ma ngi ñaanal yalla may ko combat may ko ci ndab combat hmm. bi ni mu jeexee nii na la wala bet lo non duma ma parce que bo xol suñu signature wax nako ko né nako man duma bëre ñaar round suñu bëre si ay sa wonuma lay daan kon man bett ma kon mom lay bett kay mom mom mom lay bett mom mu man boy la tang nangam nangam mom ko doole mom ëpp daan. comme séntu nga comme ni mu jeexee mu jeexoon ko nii quoi. waaw séntu noonu naa mu gën a sax. mu gën a gaaw nii. dina hmm, naa mu gën a gaaw nii. waaw hmm. à part Reug bi nga laaj say morom ci biir làmb maanaam Jackson ci ban palier la bokk. waaw ñun de ñun de ñoo hmm. boole la ñu dégg suñu staff ñu bëri moom quoi. bàyyi woo fi kenn. bàyyi kenn waaw. seul. tout seul. bàyyi ku lu mbëru géewaay kay waa ak waal waal waaw ñëpp ngay bëreel ñëpp laay bëreel ma dus bëri géejawaay waaw sa diggante ak écurie bi nga nekk muy géejawaay mbooloo ndax euh, gis nga leen si bu baax a baax si combat bi waaw gis naa ne si bu baax wax dëgg yàlla géejawaay mbooloo jàppal lañu bu baax a baax kontaan nga man bu baax a baax a baax kay mhm. uh-huh. gas euh, Jackson ci biir làmb lan la doon roi des arènes mhm. waaw doon roi des arènes euh, li koy may ak li koy eggal nit xam nga waaw sérieux rek ak entraînement yu wóor mhm. sérieux entraînement yu wóor mais li jaaxal gars yi mooy Jackson comme ni ma toogee yow nii doo ko mën a xàmmee par rapport ak boo bu ñëwee ci biir la. waaye noonu noonu la demee billaay xam nga rek affaire yi moom da ngay da ngay jëf quoi bañ bañ di wax rek ñun ñun dañuy jëf waaw duñu wax waaw billaay. jëf bu am xel. waaw jëf jëf jëf jëf waaw billaay. mooy la noonu sa kii nii kii si salal la. kii moom sa jour wax du ma ko taayee wax sama papa la sama xarit la sama léeb la. daf may jox xaalis daf may dooleel daf may defal lépp. waaw ama fayam daal. waaw bilaay waaw kon ñu bàyyi la kon nga tàggatoo. waaw maa ngi sant ñëpp di bëgg ñëpp di ziar ñëpp di sant waa Géewaay waa Buun. ñoom am ñoom ba laa Diop ak suma grand lire bi sama papa sama lépp. di sant ñëpp daal di sant Pape Mame Fall Mon Ndiaye directeur ba Serigne Malen xarit bu Lirou Diane. lay ngay loolu non Mon Ndiaye dafa jàpp dafa jàpp su ko dafa jàpp su ko bi dafa jàpp bu baax a baax a baax. gaasam boobu maa ngi koy bëgg bu a baax. Mhm. di nuyu ñëpp waa mhm. jàmm gan maa ngi bëgg ñëpp. nga xamante ne bi mooy euh, Jackson mu ne dégg nga kàddu yi ni mu ko yëkkatee kon dañuy am mbégte ak kontaan si ñi nga xam te ñuy suivre dañuy bàyyi xel à tout moment comme ni ko liir waxee rek Jackson la rêve la ci biir ci nekk tamit ci géewaay di ci liggéey lu am solo nañ ko jàppale bàyyi ko xel. promoteur nañ ko seet si waat jox ko combat parce que ndaanaan la parce que bu jógee ñëw ca làmb li bëgg ca làmb mi ngi ci moom bu neex bëré bu neex xajam bi ci bi bëgg ci biir lamb mi ngi ci moom kon naxo gaay gars yi jàppale ko joxal ko yeneen combat xam ne ci biir lamb la bokk kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bëggee waat bu baax a baax suma grand monument bi liru jaan waaye nag dafa ma sonal trop dafa ma sonal trop maa ngi koy ñaanal yàlla dafa ko jàmm dafa ko tawféex kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous ci beneen programme ci lit Sénégal TV jàmm ak xéwal yàlla na ko yàlla tur askanu sunu gaal jërë ngeen jëf merci beaucoup pako faïence yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police ba seen numéro téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nak dañuy ubi du lundi au dimanche à dama ne kon nak bo bëggee ay kar yu bax dawal gaaw séti wa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk foofu ca Parcelles Assainies ci booru marché police établissement Khadim Rassoul le choix de